fàtte laaj maa ngi topp ngénte leen kenn du lii lan la ni ah man nga koy laaj jaam de suba ba tey mi may tëggal baax daf daa am nekk ci kër gi léegi benn di àndam ni xala ànd jàmbur la jël de wax nga du dégg nga lii euh, baax caam mi wax si wuy ma bëgguma am moom problème bëgguma koo teg ci yoon ñu koy tëj di ko defeere wax naa leen sànq laan ko may ma ma jënd ñaari kilo yàpp mu tam ma xam naa looloo tax mu indi lii mu lan la lii lan da lay da man lu ma ragal hmm. ah na ñoo teg ko nii kaay aussi ko nii kii elle la traversé les âges ah. cest à minimum def na trois cents ans kii day naaw de de ciel en ciel day jógee ci bii bi bii asamaan dem ci beneen asamaan loolu nag dama ko daan dégg rek dama koo gis dama ko gént dañ ma koo wax ma gént ko gis ko dégg xam doo dégg li ma wax hmm. dama bëgg nga jóg sa bopp yow man nag dëmm ma dafa jafe ndaxte dama pare sama ndey dafa am lu ma jox damaa we xat man kenn mënumaa dum man kenn mënumaa lekk ah. man je suis dama bëgg nga wax ak moom mu leer wala li may def maa ngi koy def nag attention jarul xulli sa bët. prends tes décisions lan la man lan la yow. yow man ngay laaj lan la yow kii wax ay waxi naxa sax nam nga naan lan la yow yaay nooxóor yaay dëmm. yow ma nga indi yow yaay laanu léegi. man dama lu ngeen jot caam wax ci yow di a baax wax ci. yow yaa yow laay ne yaa xam naaw fii yaa xam ay 300 bàyyi sama tur yaa ko xam dimbali ma. tu traverses les âges. yow xam naa lépp yëg naa lépp wax nañu gis naa lépp. waaw yow yellal la lan ngeen jot ah, ba lijjanti lii ba man maa ngi suñu diggante jeex benn yoon wax ma ma dégg mën naa nangu lu ne nag ba mu des lii ca may ma huit mille ma jënd ñaari kilo yàpp rek mu ne ma dama ko euh, dégg nga wax yàpp waaye yow xanaa booy dem marché di jënd yàpp man la yàpp man man kii mënumaa yàpp man kii mënumaa yàpp laa wax dégg mu baax li ma la wax yow la su fekkee mën na laa yàpp mu yàpp la mais bu ma laal bu ma jege dama bëgg nga moytu tuma yow yow laay wax moytu ma. loolu moo tax mu indi cuuraayam nee na man dama dañ may tooñ. koy tooñ xam nga lii moo tardé Sénégal dañ koy tooñ. lii moo tardé Sénégal. mais mais Thiam Thiam tam il faut ah. arrêter quand même. yaa non yaa ngi exagéré. yow lan la jënti ko kii kii sa jabar la. am na droit ñaan la pour jënd yàpp wala dara. tax na nga naan ko dem boo ko mayu malade moo gën a set. naan dem fii da nga am koo fii itam yow gën a nekk dëmm ñëpp. bàyyi ko xam nga dëmm yow. yow yaa dëmm bu mag bi yow yow bi yow yaay dëmm bu da ngay rax ci famille bi yow sa ndey la yow yow yaay dëmm yow yow yow yow yow yow yow ma koy wax yow kii de tapet kii moo la man xoolal yaa ngi miir yow miir ko yow gis nga yow miir ko mer na yow cam ah, mer ba entraînement yi la xam li bu heure bi fekkoon ngay ngay tëral lii du la gisuma ko ma nga ne tax wuy maa ba taxawal anam ba caam soxam bi romb ngelaw li ma romb rek man maa ngi miir kon xaw ma yow mii mu dal noo mel dalal dalal wóo. Oh. man lay dóor. dalal ba bu mu jooy. ah. Oh, eh, eh, eh, waa kër bu. Mm-hmm. dégg naa li nga wax ak sa papa yëpp ci saal bi ndax euh, dafa am loo xamante ni. Mm-hmm. fu dara xaju dara xaju fa. Mm-hmm. gis nga sa papa ni mu nekkee. nekke na ko ba noppi yow nag dangaa nekk ci kër gi ak say ñaari soxna war a jël say responsabilité nag ba mu mat sëkk ndax fi toll nii boo nekkee ci kër gi yilif sa soxna yi boole waale ñu ci yilif ñu ñun ñi ñëpp kon war ngaa mën a doxalee neneen dul sa papa nag moom xam nga ne ndawam sa bàyyeeku ko ba tey ndax ma ngi fay dem sëy bi tasul te nag fii Sénégal juróomi jabar amu fi ñeenti jabar moo fi am yaa ngi dégg kon am na loo xamante ne mën naa ñàkk bëgg na bëgg xaalis goo xamante ni mi ngi dégganteeg ndaw si te ndaw saa ngi koy jox xaalis di ko ko xëpp kon foofu ba sëy moo fa nekk sëy amatu fa man maa bëggoon nga waxtaan ak moom wala nga xool loo ci man nga def ko ci ndax man ñeem a gis mënumaa waxtaan ak ñoom xam nga sa problème mooy mbaa papa amul makaarimal axlaa am moom day woy rek li muy def seetu ci dara amul ci benn considération lenn moom naa la ko wax sëy bi am na wala amul dinaa ci dox ay jéego wax nga dëkk parce que aussi loolu moo ma war mm. dinaa ko gëstu dinaa xool ndax moom sëy bi mu ngi ko woon ba tey ba koy consommer di fa dem waaw wala déet dina ma leer daal parce que aussi quoi qu'on puisse dire dama bëgg ngeen xam ngeen sama papa sax fu mu dégg xaalis fu mu ko dégg walla mu yaakaar ko fa fa lay nekk fa lay nekk du fa jóg. te ndaw si yéen leer na leen li tax mu duggoon ci sëy bi xam ngeen ne xale bi ndaw si dafa am xaalis parce que bi nga gisee papa ñëw fi jox fi jaxal bi mu fi jox ce qui veut dire que ni sa mbaam daal dafa dugg ci sëy bi nii rek pour ñu koy alimenter xaalis la mënta muñ sama papa la seen jëkkër yàllaa ko bindee noonu noonu la mel jéemu ci dara nag ngir jéem ko change xalaatul suba xalaatuñ dafa am njaboot sama papa xalaatuñ ñun dañuy génn sax ñu war a teg dara suñ der il s'en fout léegi daal man li ma lay wax mooy dinaa gis góor ñing parce que moo takk sëy bi su ko gisee góor ñing dina ma wax lu leer bu ma ci noppee bu dee dëgg la dinaa dem ba foofu sëy bi moom bu dee lu ñuy tas la dinaa ko tas ah, yaa gën a xam ne sa papa du ko nangu ndax moom yonentu yàlla xaalis day jaam te gis nga mbir mi maag sën kese ñoo ko jël au gis nga asoo ko Ndey Njaay jëluñu ci benn te Ndey Njaay gis nga xew mii ku ko nar a xañ dalay ak liquide rey la moo tax ba ñuy wax wax ji moom nangu ci sax dugg sànni ci sax de salam man li may na ñaan ma yaa ak sama yaay toog leen ngeen jàpp seen ñàmb waxtaan ngeen ceeg man dinaa ko topp dinaa ko dox li ci war dinaa ko def sëy bi nee naa la bu dee lu lu lu avéré la lu nekk la sama papa dina may kii baat parce que mi ngi wedd ni takk ko comme na mi ngi wedd ni takk ko dinaa ko jël mu ànd ak moom ba foofu ñu régler problème bi sëy bi moom dina jeex ci ni wala mu jeex ci na yow moom li nga waroon def yëpp def ko ñëw nga ci man dégg ngeen ma seen bopp bàyyi leen ma li ci def man dinaa ko dox jeex na bàyyi naa ko sa loxo. yow yaay taawu kër gi yaay gi yow loo def a gën loo deful. wuy ma temps yi xale yaa ngi toppatoo nag. te ah. loolu laa de. damaa yéex xam ne wuti wutee daa neex de. ah yow tamit da ko dul tukki doo xam fu dëkk neexee. xam nga lu nekk sama xela waaw def ni sama papa am ñeent. ok. waa dëgg. sëñ xool mhm. damay wax alhamdulilah mhm. ndax ba may mujjee jógee fii maag yow am na lu ñu mhm. waxante woon nga ne ma soo demee attaquel xam nga caam moom ku ko ne attaquel moom <laughs> ki wax la ma ko def ni ma ko waxee nga ko defee et li ma gën a li ma gën gën a doy waar ci affaire bi dama jàkkaarloog moom di waxtaan ak moom xam lu ma njëkk a wax caam de eh, yow laa doon xaar man ko ah lu xew ba jàmm ndax damaa xiif ndax yàpp dama. yàpp wala yàpp. <laughs> yow de yow yow yow bu ma jógaloon ci yow bu ma jógaloon ci yow tuuti rek xam nga nu lay def. ah waaw bu ma jógaloon ci yow tuuti xam nga nu lay def. waaw wiy ànd ase. wiyaande ase dugal la ci mburu yu nooy yi. kii Afia na woon bu yàgg daf ca mayonnaise ak ketchup. kii yóbbu na ma Afia foot bu yàgg. ah yaa ngi fàttali ko ceebu ceebu yàpp bu neex boobu. Hmm. ñu fi mooy ceebu yàpp bu neex bu jeex moo ko togg xam naa loolu. kamoo togg ceebu yàpp bi yow. mu bu dee man saraxe yow. lekk ngeen lu ngeen xamul de. bu dee man saraxe. ki jël yàpp ceebu yàpp Ndeye Ndiaye dama ko jox may lekk man. lekk ngeen lu ngeen xamul de ah? lekk ngeen bennoo ngeen xamul de. non si nga Bouda chut. Hmm. non sëñ xol. Euh, ma ne. Hmm? lekk ba ne xam nga man wax naa la ko fii nee naa la bàyyi su ma la waxee dara nga dem def leneen lan lay toggee ngay lekk ay ceebu yàpp ak di lekk xam nga yàppi lan. dama am nattu sama nattoo nii. waaw ah, mais waaw sama nattoo ngi nii si sama biir. Euh, euh, ma ne kii ma may rongé chaque jour kii la. xam ma moo lay rongé xaw ma boo moytul di nga nekk rondel moytul li ma la wax te gis nga bi ma demaatee ci guddi bi ngay ak histoire bi boo toog ak samay rawaat ñu ma xew waa mbedd mi dañu ñëw waa mbedd mi ñëw ñu. waaye foofu fees dell nga waa ah, mbedd mi ñëw nii laa ko gisee nii laa ko li ma ci gën a jaaxal mooy bi ma defaatee listixaar moom ndekete dafa am ñoo xam ne ñooy ay apprenti am. dëgg la am na ay apprenti moom boobu am na ay apprenti yu góor yoo xamante ni ñoom buy buy def ay affaire am ñoom ñoo koy accompagner ci li muy def fu ne si biir ngi ci biir kër gi kër gi ñu ngi ci biir kër gi ñu ngi ci ànd ak yow moom maanaam bu demee ba rosé bu la rosé ba ngay jeex maanaam ñu góor ñi ñoo lay téye mu mu jëfandikoo li ci des nga ne lan maa la lu mel nii dafa am dafa am man du ma ko waxee caaxaan. dafa am ay la ay góor ay apprenti yu ne seen biir di ma mais ma fi apprenti bi <laughs> ah, man kenn dong laay àndal fii ah. kenn rek dong kese laa fi àndal fii ah. moom moo ne sa moo ne sama biir di ma roose di ma def lu ne apprentém la de apprentém la xaw ma de apprenti am na apprenti yu goor ndax man diggante ndar gànjool lu jëm noonu képp koo xamante jaxale nga ci mbir yu mel noonu man ngay woo <laughs> waaw Thiam la man léegi nag suñ xool la mooy solution bi solution baa ngi nii bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin gis nga cuuraay bi may bëgg a taal. bu ma ko taalee waxuma sax fii ñu toog. waaye gox bii nga toog nii. fii ak fukki at. képp koo xamante ni da ngay da da day tooñ. boo fi bëggee ñëw di nga ko seetaat. man de man damaa bokk si xeet bu baax. man dama bokk si xeet bu baax. man si sama maam. baax na sëñ baax na bismillahi rahmaani rahiim. man dama amee sinusite xaaral ma ñëw. Eh, eh, eh, dama jël toxal sinusite dama amee sinusite si ah, ah, mbedd la toxal la ilaha illallah turki cam lu ma la waxoon. la ilaha illallah bu daa yow. <laughs> lu ma la waxoon ah ndekk di dëbb bu mag baay. bi li mu wax booy bi moo di sama ma dama rongé man. yow bu xool mo xool na ma. Ah, yow léegi nga cam dee naa ba pare cam li ma la doo ko dégg waaye toogal di seetaan. cam walla di nga dox ci mbedd mi ni këpp waaye ñaata yoon laa fi ne kër waaw waaw kër moom te moom moom yeneen du ma yóbbu hôpital kan kii moom mi boobu mi nga ànd ak gaaw mi boobu mi nga ànd ak gaaw mi man nag li ma la wax mi ngi nii lii cuuraay la boo xamante ne daal wala bàyyi sax mu yóbbaale ko ndax dinaa wutal yeneen dinaa wutal yeneen ci bugaay dinaa wutal yeneen ñaata laa la yoroon 35 mille 35 mille léegi xaar ma jox la 50 du ma ko laal sañ xol du ma ko laal bul àggale du ma ko laal waaye man sama mor sama morom laa ba nga may jox ay ñetti junni ñetti junni ak 35 mille du may 50 mille man duma ma nelaw guddi du ma nelaw ba ca nga ma yow lii moo tax yow lu la jekku def la ko da nga nay sa xaalis bi nga am da koy génne soo génnul lee nga man du ma sa morom nag gis nga bu ma demee dinaa la boole ñenn ñoo xam ne la lekk waaye dan lay dan lay dóor ah mënoo bàyyi nay waaw defal ndànk yow tamit xool soixante-quinze bi la ko jox ah ma ko orange mën jox na ah yow ah, voilà waa gi ngeen ko déggee bi demee bi toog umu yooyu nuyu euh, di la wax massa di wax si ci li ñu bokk waaw ndax ñoo ko bokk mbokk gi dugg na pare kenn mënu ci dara moom nag moo ne woon ma dajale famille bi mu ñëw def njaalam waaw waxtaan ak yéen nemmeeku leen ndax namoon na leen li mu tukki lépp waaw nee moom bu sañoon moom sax moo ñuy jaale ñun ñoo ñàkk xam loolu rafet na waaw moo tax umu nag fan baa ngi nii waaw dégg waa kër gi jërëjëf ci dalal bi ngeen ma dal ni tey hmm. fii su ma fi ñëwee dama fi war a ñëw ndax même bu dul dara doom laa ci kër gi dëgg la maa ngi fi woon yàlla jëlee ma fi mais ba tey doom laa ci kër gi te ki ma leen di jaal maa ngi yéen ñoo ko bokk hmm. muy sama papa di borom kër ci bàjjen di xarit ci yéen mm-hmm. di mag ci sama papa maa ngi leen koy jaal bu baax a baax mm-hmm. ndax yéen laa ko war a jaal ndax yéen laa ko bokkal mm-hmm. xamul woon fenn fu dul kër ga camp ba ak fii amul xarit gisu leen ko kenn ku dul xanaa ma leen ginnaaw yéen ak bàccam moo tax ma leen koy jaal bu baax a baax ndax dëgg bi fekkuma fi daa fekkoon ma dem liggéey dem Rosso ci sama liggéey nag laa nekkoon nekk moom ci leen loo xam ne lu ñàkk fayda la xamoo loolu doxal ma ne tey sama papa dajale waa famille bi mhm. ma waxtaan ak yéen mhm. ndax kat bàjjen mii mhm. dinaa leen wax xëy na lu ngeen déggul ci sama nopp papa wala sama gémmiñu papa sama papa gërëm na ko toog naa mu waxtaan ak man ndax man rek la am waxtaan ak man bàjjan bàjjen gërëm na ko nee bàjjan bàjjen suturaal na ko nee bàjjan xoolul lu mu am ak lu mu amul bëgg na ko yemalewu ko ak dara te loolu tamit man li may doon doon doon xale ci kanam bàjjan teg naa ci sama bët ndax ñëw na kër gi mm. fekk ma fa ak sikk bu ma mënti doon moom suturaal na ma mm. def na ma comme doomam lu ma ko mënti def day rek noppi wala des fois mu woo ma ñu kafree parce loolu rek laa xam ci moom konte ma moom laay njëkk a ndax moom moo gën ñàkk ñëpp moom laay njëkk a mastaw waaw mastaw bu loolu wéy man sam papa daf maa nëbboon boppam hmm. waaw ndax man dong la am hmm. loolu ñëpp xam nañ ko li ma wàññi daal ci kër yi nga xam ne xam naa ko ni gis seen kayit mu leer ma ne lii ay papier bàyyi la sam papa moo ko moom. Hmm. ci yi ma xam ne rek mat na douze kër. fukk ak ñaar. Ah. waaw douze. ci nga xam ne man moom laa xam. moom nga compté gul daal waaw bokkut ak ñu toppagul. waaw bokk yi nga xam ne après avocat bi na topp ci des. Hmm. incha allah waaw hmm. ak aussi dem naa quatre banques yoo xam ne en compte yi bu ci nekk bi ci gën a tuuti 12 million la am. ah bu ci nekk ñaata gën a tuuti ñaata compte la bi ci gën a tuuti yëpp 12 millions. mooy 4 comptes yi 4 comptes yi. waaw kooku de ay. 40 millions am extérieur bokk tag yi ma am extérieur. te xam nga loolu lépp man su ma ko lekkee bàyyi kii goreewu ma. kii moom moo àcc. su ma toppee nag li ma yenn nit ñi di wax mhm. yàq xatu xel yi liñ may wax sa mhm. alalu bàyyi la sa ndono bàyyi la sama bàyyi moo tànn ki dugal ko ci boppam kon maa kii mhm. ma mën a lekk alalu déedéet kon nga lekk nga lekk baax ah? kon miraas du ñàkk bu doon man kese ma ne man kese maa ko moom waaye comme sama tàntaan yi miraas mënta ñàkk taxam moom ma ne papa ba Euh, miraas bi su jotee. Mm-hmm. ma woo la. Mm-hmm. incha allah mm-hmm. incha allah. oui mooy lépp nga ànd ak imaam toog. wuy leen ma lu ngeen di dégg wax leen ci kaw rek. Ah, waaw ba tey waaw waaw waaw. ah wax leen ci kaw mu déglul ba mi ah, ma ne loolu nga wax. du mën a ah. ñàkk. gis nga alali héritage ndono. mag dong ko mën a lijjanti. boo jiitalee gone yi rek ñàkk sa alali bàyyi. yaa ngi lim am na tool bu ma àndoon ak moom ci tubaab jalaaw mhm. njaay forage ko ko doon gasal forage ba xam nga tool boobu xamoo ko man naay hectare mhm. moo tax mag moo mën a lijjanti alali ndono mhm. ngi dégg te fi mag moom ëpp yaa ngi dégg man sa baay toogoon nañu moom dafa mel ko am xam-xam dañoo toog ba mu yàgg ñu jékki-jékki mu ni ma um mi dénk naa la ko ba mu yàgg mu ni ma ba may naa la ko oh. binam moom waxoon loolu billaay moom waxoon loolu binam yaa ngi dégg donc moo tax man kooku billaay war naa ne ma nga àjjana kii borom xam-xam la. Euh, xam nga nag bu dee ca gétt ga dee na moom fara dee militaire bu dee xare dee na fa mu war a dee. billaay gëm naa ne ma nga àjjana. waaw dinaa ko topp ba mu jeex. taxawu la. Euh, ñoo ngi rafetlu ci sa ñëw ci kër gi. Mhm. di ñaan yàlla nag say tànk yàlla na doon tànk jàmm ak salaam. Mhm. ba yow di leen dong laa lay wax. Mhm. alalu ndono moom. ku ko lekk fii ba di déwén te jigu la yàgg yàgg yàgg dina feeñ ci yow. loolu loolu loolu ñëpp xam nañ ko. waaw léegi dama lay fàttali rek ne la binom hmm. alalam ji. Hmm. sa yoon newu ci. déet borom a ngi nii. borom alal jaa man kay lu dul eh, eh, eh, ñëw rek puus ko jàppale ko ba dara du nax saay ndax loolu ma bàyyam dénkoon waaw. baax na. Hmm. jërëjëf ci li nga taxawoo bàjjan. Umm. man day lii bettu ci yow. man xamoon naa ne soo ñëwee nii rek lay demee. Mm-hmm. ndax ñaari goro la sukk jur nag. laa leen kon yow boo doxee wewul nii ñëw doxee neneen. Mm-hmm. damay am lu ma naqari baa ma rus. yàlla na sa jàmm yàgg te nga mottalee sa sago. Mm-hmm. sa bàyyi lim la fi bàyyil yàlla na nga ko muurloo. te mu dàqal nag seytaane ndax xaju fi. amiin amiin yàlla na la dëddoo ak jàmm ak salaam. ma ne ko yéen ñëpp seen parole rafet na kàddu ma ne ko ummi mii moom duma ko duma ko wax man dama koy gërëm rek mhm. ndax ummi def na fi lu ne ci kër gi baax mhm. maa fekke la police bëgg mhm. lu baax la fi mës a def lu gën la fi mës a def ummi daan naa am sama problème mu ne ma yóot xëcc ma fajal ma ko patak organisé te mbindeef du yëg di def lu baax nag ci kër gi yàlla nag mooy dogal waaye ah lépp mën a nekk ko defarwaat dara fii nit di xuloon na fekk kilifa sax ñu juboole leen. dama ni fi xuloon na fi ah, kañ je suis responsable. ba yow la baayam. Hmm. may kii ne la ay xam nañu régler lépp. Hmm. mu ñëwaat ci kër gi sotti ceeg def ndax bu sën a nii da laa gërëm de. Hmm. seen mënu sax wax na émotion. ndax li nga ñàkk rëy. ku la gërëm la nag waaw. yàlla nag mooy def waaye ci kàttanu yàlla ak mbaaxam lépp mën nañ koo defaraat léegi nii mu ñëwaat ci kër gi sëy euh, euh, fi nag mm. ndax yaa ko njëkkatee doom ja ndey ja kii yaay moom nga war a topp waaye ndey jeeg doom ji ñëpp may seen kilifa mm-hmm. taal loxo yi amiin ah as eh. hmm? doo taal sa loxo yi hmm? nii rek ngay def di mélange. comme ça waaw. yéen a de. c'est simple. ngay def fii. mais lii lan la. lii lañ tuddee regard d'entrée. regard d'entrée fii lañuy def neefere yi ba pare récolte bi mooy andi ndox mi nga acheminé ko d'accord bouse de vache yi nga fiy def def fi ndox après nga yi mélange ko quoi. mélange ok mélanger gis nga tuyau bi. waaw moo ko yóbbu sa ginnaaw fële. foofu mu ko yóbbu loolu lañ tuddee doom bi. Hmm, doom enterré. foofu mooy produire gaz bi gaz boobu moom la ñuy acheminer ci cuisine bi. circuit la quoi moo dem après naa dina dem ci cuisine ma wan na ni ñuy toggee ak gaz bi te du ñu utiliser charbon de bois duñu utiliser bois de chauffage duñu utiliser beneen gaz fii la ñuy produire gaz bi léegi fële nag mooy sortie bi. voilà mooy li ma la doon wan sànq. waaw doon la expliquer. Mhm. pour affaire engrais maa la ko doon wax. dinañ fa dem de toute mhm. façon di nga di nga gis lépp quoi. Mhm. parce que sortie boobu après mooy produire engrais organique bi. après dinaa la détailler mais l' essentiel nii lay doxee c' est ça le circuit regard d' fi ngay def les frais def fi ndox mi. mélange kese lépp fi leen ko produire nag yaa ngi fi ñëpp a ngi fi nga def ko fi def ci ndox mi mélange. mais c' est sans risque. mélanger. mu jaar fi dem ci doomu enterré bi foofu la ñu produire gaz bi moom la ñuy acheminer ci cuisine bi pour def cuisson yi après le reste déchets yi mooy dem fële ci sortie bi c'est lentre et la sortie après le doomu enterré sortie boobu nag fa la ñuy am après engrais organique bi moom la ñuy yóbbu ci tool yi c'est assez simple kon euh, li nga ma doon expliquer waa programme national de biogaz ñoom ñooy def lii. PNB programme national de biogaz. il faut nga nga ñu xam ni état du Sénégal moo ko xalaat. teg programme bi teg fa ay nit ñu koy doxal xam nga bi ñu jógee Thiès ak léegi. Mhm. daaw nañ presque deux cent et quelques hmm? mhm. programme bi ñëw na ba fii amul fenn fu mu bàyyi ci réew mi fii c'est un mille rural te ñoom dañu koy soxla. Mhm. bouse de vache ñu ngi fi au ñu ko fi bàyyi mu nekk ay déchets. ni ngi après du ko waat dañ koy mën a utiliser. exploiter ko. état du Sénégal loolu la ci xalaat pour mën leen a dimbali parce que ñuy des fois pour ñu am gaz day jafe donc état du Sénégal. ñoom seen mbëbët mooy ñu dimbali ñi nga xam te ne dañoo nekk en milieu rural ñuy mën a am gaz fii ñu nekk te ci lii lañ koy jaare biodigesteur yi regard entre bi ngay def li ngay def yëpp mu jaar ci doom bi dem ci entre bi te dara duñ ko sànni lii gaz lay nekk lii engrais organique lay gaz bi nag gaz bi c'est la magie nan dem ma woon la gaz bi gaz boo xam ne amul jënd gaz amul tibb gaz. amul dara kaay ñu xam nga yii ay indi ci suuf da nga fay gis bouteille de gaas non amul bouteille de gaas xoolal. mais bi li ba c'est sans risque. gis bi gaz bi muy tàkkee. waaw. moo gën a garaaw cuisinière lu la neex nga ciy togg. te da koy yokk da koy wàññi. da yokk dangay ngay wàññi. ok neexee mu nekk cinq ngay teg. sans problème fee la jóge ci biodigesteur bi regard d'entrée boobu. circuit bi moo nekk nii circuit bee nekk nii foofu la jóge biodigesteur bi mooy doom bi doom antenne bi mooy produir gaz bi ñëw fii ci cuisson bi déchets yi des mooy dem ci sorte bi moom après mooy nekk engrais organique mooy dem ci tool yi ñoom aussi bénéficiaires yi mën nañ ko jël jaay ko ay compagnie yuy soxla engrais organique. Ah, fay nànk fay nànk sans risque man yéen ñi bëgg ay xew sax xew nday njaay bi boo deful nànk naa ko yóbbu ci biir non en fait xam nga man lan moo ma gën a jaaxal mhm. fii da nga daan gis gaañ dañuy def mat wala di utiliser ay këriñ mais xoolal li nice sa waañ day set soxlawoo mat soxlawoo këriñ soxlawoo jëndi ay gaz non seulement c'est économique yaa rien bu installation bi xasee ba def nañ ko ba pare yow fexel ba na ngay am bouse de vache en plus c'est bio Ah, en tout cas, c'est intéressant. <laughs> damaa bëgg ñu waxtaan. Hmm. dangaa dëgër bopp nag man duma la wax ba nga dégg say xelu bopp dalaa doy kër gi nag am na lu fi xew rumeur xaw ma dégg nga ko xaw ma déggoo ko lenn dong nag laa lay dénk wàññil ci ndey njaay gis naa la un trois nga dem fobi doom ji fu ñu waxee ngay tëb tëbal ak a teew ak a taf ci sa fii ak taf ci awa defal nànk wàññil wóoratul de wóoratul de te man Ndeye Ndiaye wax dëgg fa yàlla ni ma ko gisee buggumaa tooñ nag buggumaa bàkkaarit waaye xel dafa ñaaw te sunu xel ñaaw na ñun ñëpp caam lii mu gént wax ko ci kër gi tiital nañu tiital nañu ah man di ko mu tiitalu man tiit naa xaw ma nag yow. man kay yaay man kay dama doon bañ a wax waaye gis nga keroog damaa dugg néegu Tànday Njaay. waaw léegi mu dénk ma bébé bi. waaw may may ak moom de. waaw rek xale bi màtt ma. màtt. ba ma màttee damaa sax. Eh, eh, eh, yow yaa ngi yokk nag yow ki daa am bëñ balay màtt. waaw loolu moo ma jaaxal amul bëñ ba pare màtt bi saf mel ni dafa bàyyi dangar sama loxo du dëgg ban loxo la woon ban baaraam la woon. baaraam bi gisoo lii nii gisoo lii nii kiiwee nii gisoo bi dalaa màtt lii bi dalaa màtt. dafa am ay bëñ. deux mois mii dalaa màtt. xoolal allahu akbar. ay. xoolal fii am bañ bëñ kat yi lii. deux mois. amul tur di deux mois laa tuddee. Tande Ndiaye man Tande Ndiaye ni mu may xoolee dalu sama xel Tande Ndiaye da lay xool fixé la danaan la jàkk te ba pare nag day ŋaaŋ mel ni ku la bëgg a mari ne Ande Ndiaye moom oh. ma xel dalu man oh. wóorutul daal man daal tamuma kenn waxuma kenn lenn la dama ne la rek nga moytu bu fekkee nag comme deux mois de mat nag moom xam xamatuma ci mbir mi dara dara kon caam nag wax dëgg yàlla caam a ngi bëgg a wax dëgg waaw dëgg yow kii xam nga yaa ngi naa ma dangaa am yaram waaw mu téema naa ma yow de awa sa yaram bi daa mel ni sans eau la de ah! yàpp mu ne ko ay Tande Ndiaye yow nag yaa ngi may tooñ de mu ne ah mu jël la xam nga moom gis nga mu may làmb ah waaw baax na loo xam ne ci kër gi lu ñuy nëbb nday njaay koy njëkk xam lu ñuy lijjanti nday njaay koy njëkk a xam waaw lépp nday njaay koy xam lépp tout tout tout nday njaay ko ba ma demee mbuur moo ko njëkk a yëg lépp boo koy xam mu mel ni dafay ci biir lijjanti ko loo mën ñëw taxaw na weer kikk ne du moom ma def sali yëpp ba ma ñëwee moo ma ko nettali te waxuma ko kenn moom loo def mu xam ko loolu tamit xam nga ni am na lu am na lu xew man kay sanso bi laay xalaat nii est ma la yóbbu fenn toujours sama yaram bi sax day commencer di daw instant bi